siraat alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala daalin alhamdulillah alhamdulillah alladi bi nicmatihi tatimu alsaalixaatu wa bi zikrihi tatmainu alxuluub wa bi xudratihi tajri almaqaadir alxayriya wa charriya subhaanahu laa ilaha illa huwa wala nidda lahu wala tamsil ilahun laa yubadu bi xaqin gayru wasalaatu wasalaam ala man ursila wa jucila rahmatan lil alamin tibil la shifa tibil atibaa'i wa mushfil amraat sayyidil xalq min jinnin wa insi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ixwata al islaami shurafa al majlisi wafda al xayri wa salaamati warasata al rasuli inna la nastatiu an nubzila faraxana wa sururana li xadratikum maana dimna hadihi al majlis al aaliya allati madmunuha shukrullahi wa talabul maxfirati wa ridwaani maa irjaa il fadli ila al aalimi al aarif al batali al xashamshami al faxli al kathir al muddaxi xayaatahu li ixyaai diini l islaam wa tabshi wa tashriri sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala wa huwa sëriñ maam moor jaara mbay al mashhuur bi sëriñ saam rahimahullah wa ardaahu anna wa rahmatullahi wa ridwanuhu ala xalifatihi raaxili bayna usbuayni ila jiwaari rabbihi ala wa huwa sëriñ maam cheikh naj du sëriñ saam wa abqa indana xalifata xalifatihi almawjud haana huna ala wa huwa sayid sayid ibrahima mbay ataala allahu baqaahu wa tawwala umrahu bi sixatin wa aafiyatin tammin jammin wali jamii usrati sëriñ saam zukuran kaanu aw inaasa wali jamii alxaadirina walxaadiraati fi hadihi albuqaati almubarakati rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaanihi yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ñaan yàlla mi am kàttan ci dox su digganteek ak seytaane yàlla fi dox sant ko it ci xéewal yu bari yi nu defal am ci yu nekk yan la làmmiñ di ko tudd waaye loxo di ko laal am ci yoo xam ne nag dañ koy yëg cant googu nag dafay am fu mu tàmbalee waaye du am fu femm fu mu yem julli it ci sangub sang yi naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sargal bu baax Maulana Cheikh Ahmada Bamba Xaadima Rasuli mi nga xam ne tegtal nanu wan nanu yoon wu rafet wu baax wu leer diw xàll woo xam ne ku ca jaar dégg du la jam jaan du la matt pakk du la fay ba ba ngay àgg aljanna yàlla nañ tege ca yoon woowee te bañ koo wàcc ñu ngi ñaanal ngërëm bu baax sunu sëriñ sëriñ saam tey ñaan yàlla mu fayal nu li mu jëmbët ci sunu xol yi te yërëmal nu doomam ju baax ji sëriñ maam Cheikh te yàggal fi nag xalifam maam Cheikh bii di Cheikh Ibrahima ñu ngi koy nuyu di nuyu mbooloo mi yépp di jaajëfal mbooleem koo xam ne yëkkati nga sa tànk ñëw ci baas bi di ànd ak yéen nag jéem a feeñal mbégte moo xam ne fees na dell xol ba làmmiñ mënu koo génn ngir su ko jéemoon sax amul làng wu ko waxe ndax amuñu lu dul lii ndax ci la ñuy jaar ba mos tem-temu bànneexu uh, ngërëmal sunu borom tabaraka wa kon loolu ku ci woote ñu wuy si la amutoo looy wax sant rek ak ngërëm mu mel ne dañuy njëkkanteeg waxtu wi am naa li ñu doon lakk jéem a lakkantu ci arab duñ ko mën a fiiri ci wolof ndax du fi xaj waaye ñu jéem a jéem a barastiku rek tàbbi ci thème bi nga xam ne moom la ñu jox noor cee waxtaane muy benn ci mbindum ku tedd ki sa radiyallahu anhu di Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne moom mbindam yépp njariñ la day wax ne bu ngeen gisee sama mbind amul moroom ci mbind yi mooy yàlla daf maa donnale mboolem téere bu ma sa ci kaw suuf min la dum aadama ilaa muhammad rasulullaahi téere bu ma sa wàcc la ca nekk ci njariñ lu mu doon yàlla da koo dëxëñ def ko ci alxuraan karim jox ko yonent yàlla mu alayhi salaam Seexul Xadim nee na doon na ga ma doon loolu nag looloo tax lu ma wax mu am njariñ awrasanillaahu kitaaballaahi wa jumlatal kutubi bi xisbillah yàlla def ma donnaloo téere al téere bii di yàlla te wax na ne yàlla jox na ma ko hëddiya may na ma ko sarax na ma ko jaay na ma ko te jënd naa ko ñeent yooyu nag la ñu amee alal ñeent yooyu ci la ñu amee alal wax it ne yàlla daf maa wommatal mbooleem xam-xam bu ma sa balle ci ku baax yaquudu lii uluma man taxaddamu ñu ne ko waaw ñi ñëwagul nag wane ne wa wa wa man aqaru wa taalul xidam nee na xam-xam yi te am njariñ doonu naa ko xam-xam yi fi nekk itam maa ngi moom te bébé saa di taxaw sama jëf tey day gàccal démb suba day gàccal tey xustul uluma wa maqaamaati rijaal làq naa xam-xam yi am njëriñ yëpp waaye nag ànd ak xam-xam mag ña bar garaat yañ rangoon maanaam yeleen xam-xam mayoon suñ tubaa nee ne bi ma leen doonnee damaa doon naa la xam-xam booba bil xatti xaa idan fawqal maraam ba yàgg mu ne rafaani rafiu foofu dañ fiy taxaw tuuti ndax bu ne woon rafaani laahu day jub bu ne woon rafaanul karim day jub waaye dafa delloo siixa bi ci jumla bi indiwaat mastar bi rafaani ku la yëkkati mu ne al rafiu ki mën a yëkkatee rafaani rafiu mbakkee mu ne rafaan faw xal kurama bi lafti xaarin lañ yool ma ko waxoon biñ ko ne euh, ibrahima de dañ ko yàggan ci nit ñi mu ne ibrahima gën ci nit ñi ñu ne ko yaay xayrul bariyati mu ne déedéet kooku diwa ñu ne ko nag leeralal nu ku gën ci kaw suuf mu ne man maay ki gën ci kay tàkk tàkk tànk ci kaw suuf waaye wala faxra du ma ko damoo lu tax du ko damoo mooy du jëfam kese-kese coobare sunu borom moo ca tabbi loolu lu ma tax xam la kon nag lii Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul am ba tax mu ne yàlla yëkkati na sama tànk ma teg ko ci mboolem guur yàlla yëpp ra donnu seeni xam-xam njariñ yëpp wut si ma te benn la du tukkee ci man ba ñëpp daw wut si ma ndax wax ne ne sunu boroom du dañ mukk di màng nit ñëw ci man la ko waral mooy damaa bari njariñ teew ma lor nee na lool ki ko defal mooy yàlla moo tax muy santaat yàlla ci loolu ndax bala ngaa xam bala ngaa bëgg mbir dëgg nag da nga koy xam nooy wax ne euh, weñ wa ba mu toŋee ca kaw siwo ba mu fees dell ak soow mu sànni ñu xam di macc ba yàgg ma ne macc gi doyu ma naa ci daanu ndax mu gën a gaaw moo dégg de am ñàkk xam dafa baaxul loolu rek moo tax ñuy def mu ma bii takrimu rabbil alamina karama kulliyati fasirtu fuxural kurama cheikhul xadim nee na yàlla jël teraanga ràng ma di jël teraanga di ma ràng ba yàgg man may teraanga yi ñu am teraanga maanaam ñu am teraanga ma seen teraanga te loolu junjoon na ko ca xasidaam ga muy tuddee saana ilahi dalla alay al ulama wal awliya ñu ne ko mbàkkee kan mu ne man laa yadaalu xuwati wa xawliya ki nga xam ne sama kattan ak sama doole moo ko yor moo woo góor yàlla yëpp bañ toog mu leen waa jàngee dem leen toppi ko yàlla na yàlla fayal nu cheikhul xadim radiallahu anhu waxal boppam ci xasida yi ndax buñ bëggee ñëw ci xasida gi faw nu xam ne danoo tànn xasida gi waaye xasida yi yëpp nag mooy ay njariñ ndax gis nañ ci mbindum sëñ tubaa muy wax ne koo xam ne ngërëmal yàlla la ñor ak àgg ci yàlla rek nee na jàppal xasida tu baal ma de maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci bisri tuwasilu aqlaam yi ñu ne ko kan mu ne ilallaahi kan mu ne abidan foofu it am na seexa xasida balaa laa jural njariñ dëgg fokk nga doon jaamukatu yàlla dëgg tu wasilu aqlaam yi sëñ ku muus la ku mën a wax la ku garaaw la ci ay waxam ndax kenn du ko dindi tu wasilu aqlaam yi ñu ne ko mbàkkee kan ak fan mu ne ilallaah ñu ne ko kan mu ne abidan bilaa xalwatin wala abxaakama ax naa xasida jarul yaa jabaaru ju bari bay buddib xer di daane le sàkket déedéet da ngay jàng xasida ànd ak laab di jaamu yàlla li nga bëgg xasida di la ko defal ci xëccal la ay may dina dàqal ay ay ay ay ragg-ragg moo tax mu ne tu wasilu dafa dafa jëfandikoo mudaari li ñuy wax temps présent mooy fi'lu mudaari tuwasilu du dañ mukk di jot li ñu ne ko luy jot mu ne aqlaami lii sama xalima yàbbi ilallaay fa yàlla aabidan ku koy jaamu bilaa xalwatin jëlul tëju wallaahu abqaa kama axnaa Sëñ Tuubaa nee na li tax xasida garaaw mooy lu la xasida jox duutoo ko ñàkk bu la xasida yëkkatee boo jëmee asamaan yóbbaaleel mat laa wala suuf ndax danga ko namu te doo ko gis leneen lu la yëkkati nag boo boo ko namee yaa koy fekk kama ax naa ba yàgg mu ne xasida ni muy def donga yi di lëmbaaje seeni xol ba ñuy tuuri rangooñ aka def ak mbëkk bu mu leen jaaxal ñu ne ko mu ne malaakatu rahmaan nga xam leeraan lañ ñoom sama xasida yi day tàbb ci seen xol ba leen di mbëkkaloo ja xasaa idii xulu al malaa xuluba lambiya ma al malaaikati turran inda rabbiya mbindum sëñ tubaa la ja xasaa idii xuluba al xamala nee na xamalatu arsi sax buñ jàngee sama xaside yi ñu yëg ne dégg nañ luñ mës a dégg te xaside it mooy li sëñ Tuubaa wax ne ku dugg àjjana mu neex la mu naqari la daa ko dégg hërëba min kitaabati ya almadu xuuru wa bi xuruufiya tataxannaa alxuuru tataxannaa mooy lan mooy def ne daw na ba kenn séenatu ko ñu ne ko mbàkkee ku daw mu ne lu ko dàq mu ne sama araf yi calaya mu ne déedéet day dem ba yomal xiyaam mu ne yomal xiyaam lu mu fay def mu ne ku dugg àjjana sama xaraf yi ngay dégg xuurul ay ni di ko wayantoo xaside yëpp a ko am waaye ñu ñëw nag ci daj dëpp gi ñu tànn muy euh, mafatixul bishri wal amni wal jannati fi salaati wa taslimi ala muqimi sunnati diglul tur bi tuddewu ko miftaax de daf ne mafatix ismu jamo la siixa piriliyal daf ne ay caabi yu baree ngi ñu ne ko mbàkke caabi yi lan ak lan lay ubbi mu ne ajjanaa ngi ci mbégtee ngi ci kóolutee ngi ci noo ko tëggee mu ne julli ak sëlmal ci ki nga xam ne moo taxal sunna moo taxawal sunna ndax njool màkk moo taxawal sunna huwa alladi haajara lil madina bi amri rabbihi fasaana diina suñ tubaa na mooy këj yéegi màkka wan ko gannaaw jiw madina mbàkke lu muy wuti lu ko tax a génn mu bëgg a ñogal diine huwa alladi haajara lil madina bi amri rabbihi fasaana diina muy xasida goog bi ko sëriñ bi ubbi li mu njëkk a def mooy li ñu doon wax léegi mooy muslu yàlla ci seytaane xam nga lu tax gis naa ci mbindum sëñ tubaa mu ne bu leen wóolu mukk mbirum seytaane ñu ne ko lu tax mu ne fa mu gën a dansé gën a garaawe fa lay ñëw mel melokaan woo xam ne ña koy xam duñ bari xanaa góor yàlla yi mooy fi nit ki toll ci diggante génn àdduna war a tàbbi àllaaxira bisam bu mujj ci àdduna bisam bu njëkk ci àllaaxira muy diggante bu garaaw bu garaaw li annahu waxtal mamaati yati shaxsan li yuxrimahu taat nee na foofu seytaane day teew léeg-léeg mu indi melaw baay léegi-léegi mu indi melaw ndey mbaa xarit bu la jege naan la deel ci diine chrétien ñu ko sëñ sam jàngalee euh, borom xam-xam yi jàngalee ko ni moo tax sëñ Tuubaa ne bu leen ko wóolu li taxit mu mat a muslu mooy inna seytaana la yajri euh, seytaane day daw ci yaramu doomu aadama mara yat dimaay fi fi badani maanaam sa deret ni muy circulé ci sa biir yaram noonu la seytaane dugg ci biir di la jax-jaxal moo tax sëñ Tuubaa day wax na yàlla na yàlla musalu ci seytaane ndax ku mucc musalul doo ci mucc moo tax bi sëriñ bi ñëwee rek dafa jël xasida gi jël lu ñu tudde al istiaada min asheytaan daal di wax audu billahi min asheytaan rajim lu mu ca teg mooy tàmbalee li nga xam ne lenn loo ko tàmbalee lu dul loola du baax yoolu màkk moo ne kullu amalin lam yubda bi bismillahi fa huwa abtax wala abtal jëpp jëf ju ñuy jëf te tàmbalee wuñ ko ci turu yàlla am na turu keneen kuñ koy tàmbalee ndax yàlla ak seytaane rek ñoo fi nekk bu nee diis rek seytaane ñëw boo ko tudd rek seytaane ñëw ku lekk tuddoo yàlla yaag seytaane bokk ku naan tuddoo yàlla yaag seytaane boo tax sëñ Tuubaa jël turu yàlla tàmbalee ko ndax gépp jëf juñ tàmbaleewul turu yàlla loola baaxul dégg ngeen ci njaareem kam doon gasloo xer ba wala ñam doon gasloo xer ba ku ñëw mu ne la gasal nga nekk culet mu ne la baal keneen ñëw ne culet mu ne ko baal keneen ñu ne ki mu ne ko am ku ñëw ne bismillah mu ne ko gasal te bu doon dem ba téeméer it li fekk déggul bismillah du gaslu ndax jëfam moom du ko tàmbali dul bismillah ñaan it sunu boroom seytaane moomu yàlla musul ko ci moom te bañ ko mu mañ koy teewe ndax ku mu jéemal bu ci yàlla andul mu manal la dégg ngeen boroom daraje ju mag gis sëñ sëñ sëñ saam doon nettali te ma waxoon meneen mbokk mu ne ko man de seytaane laa bëgg ko teen koo bañ a gis ak a bon may def ba gis ko mu ne ko xuru sàngam boo fa demee takkusaan daa fa dajeeg màggat moo xam ne kumur na koo ay seytaane ba mu dajeeg moom nu mu def ba nax ko bu moom ko bi ko seytaane daane def ko ne bu dul woon nangami at yi ma xam ne waruñu ko dund dama lay rendi waaye xam naa ne war ngaa dund nangami at juróom-ñaari at fekk juróom-ñaari fana ko dese mu ah, dese naa juróom-ñaari at maa juróom-ñaar fukk naa cakaay a a du jaamu yàlla fa muy cakaayee fa la dee musiba xew moo tax mu ne bu leen ko wóolu sëriñ bi it indi ci mafatihul bishri ñett yu am solo mooy yetti weer noo ngi ci wenn wi wenn wi génn na noo jëm ci wenn wi muy rajab chaban ramadan damay wax ne ñett a fi ñëwoon ñett di leen séddoo rajab daa ñëw <laughs> shaabaan ñëw ramadaan ñëw ñu teg leen yàlla ñëw ak yonent bi ak xeetu muhammad muhammad ne yàlla yaay war a tànn ndax boo boo tànnut kenn du mën a tànn yàlla ne ko tànn naa rajab sama weera yonent yàlla muhammad ne ca shaabaan ne sama weera dal ne jël naa shaabaan ramadaan def ko muy sama weeru xeet tax ne rajab shahri yàlla yonent yàlla moom mu ne rajab laa wa shaabaanu shahri wa ramadaanu shahru ummati léegi nag ñett ñooñu ngay xool kan ci ñoom mu amul dimension ku ci nekk dimension am laa tudd wala toxsaa bi ci gën a néew dimension mooy xeetu yonent yàlla Muhammad ndax seen daraja ñu ko jëlee ci Muhammad Muhammad darajaam ci yàlla kon yàllaa ci gën a kawe yàlla tànn rajab Sëñ Tuubaa ne cas rajab ne moom lay tàmbalee sama xasida gi dugg ci biir ci biir rajab tuddee ko xarifi boppam indi turu yàlla yoo xam ne rajab la ca bind mooy juróom-ñeent turu yàlla daanu ci ñëw ñëw boo ko xoolee ca Chine sa ba ca nuun ga Chaabaan la cay jund Ramadan nag mu ne respecté naa ko respecté goo xam ne damay tudd li li ne ci biiram te mooy alxuraan waaye duma ma jaar ci tur waaye bokk na ci xaside gi li tax mu bari ay martaba mooy daa bokk ci alxasaid al muxayyada bi bi ahadi min min ayatil quran sëñ da koo tëgge benn ayab alxuraan boo xam ne jàpp naa ne amulub ñaareel ci ni mu ko tëggee mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima laaya boobu moom la sëñ tubaa tuddee ma faatixul bis yi moom la ko tëggee waaye nag indi ko ci nag miraaran du fi xaj waaye ngeen ñu xam ne rek mafatihul bishri mooy taqyiidu inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon bi sëriñ bi defee loolu ba pare te yàlla teg ci bi yàlla joxee ord te damay wax ne benn ord képp laa xam man déggu ko yàlla joxe ko te ku koy def fekk ko ca mooy inna laahu malaykatuhu leneen lu mu doon bu yàlla ne wóor leen moom du woor eh, bu yàlla ne woor leen moom du woor bu ne julli leen du julli julli gii nuy julli di sëgg ak a waaye ord bi mu joxee ne def leen ko digal naa leen ko daf ne bu ngeen ko defee kat fekk maa koy def su ngeen ko def maa ngi koy def ak ñi ma yilif muy malaaka yi kon nag joxe naa ordre tey képp koo xam ne da ngay nangu sama ndigal di bàyyi samay tere te wax naa ne yàlla zin amanu lool lay tiir lool lay firi ñoo amoon gu baax gu xoromu ku mën a waxtaan dafa wax ne yaay la dina amunu saa boo ko déggee ne nel fojjat muy góor gi dëkkoon ngeexoox xam ngeen ko yàlla yàlla yërëm ko Seydina Ibrahima saaxu nee na bu yàlla ne yàlla dina amunu nee na neel fojjat te ne joddu bu nee lu ñuy bu nee jëf leen wala daw leen nee na bu la kenn njëkk fëx ñu ne ko lu tax mu ne bu dee njariñ lu ñuy dàq boo fëxee ca ñëkk ñëkk fëx daa am bu dee lor buy ñëwit d'accord bu dee luy dàq nit ñi it balaa ñëw fekk nga jàll moo tax mu ne yaay la dina amunu saa ko déggee neel foo jette ne jot bu dee lu ñuy dàq lu ñuy wuti man nga am da nga da nga am bu dee luy dàqee du la jot waaye benn ordre boobu daal la yàlla joxe ci kaw suuf ba pare ne ku ko def fekk ma ca Sëñ Fallu Mbàkke daf ne woon bi yàlla nee dem leen tool njool màkka bayal ko ku ñëw ca tool ba da ngaa fekk yàlla mu yorob gopp moo ki malaakaam laaye boobu moom la sëñ Tubaa tëgge mafaatixul bichri wal amni wal jannati Mhm. beneen bi mooy xasida gi ci boppam dafa am ñett yu ci daje mooy alismu wal musammi wal musamma tur yu ci boppam ki ko tudd ak ki sàkku ñu tuddi ko ko ndax sëñ Tuubaa dafa mel ne dane yàlla xasida gii kat dama bëgg bala ma koo joxu tur maa daan wut xasida tuddi ko tur waaye tey damaa bëgg yow yàlla nga tuddal ma xasida gi yàlla ne ko ana noo bëgg ma tuddal la ko xoolal ñaar yooyu benn bu ci nekk benn bu ci nekk jar na taxaw màggal xasida gi wa sammi hada al maktuba bi mafatixi al bichri wal amni wal jannati fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna yàlla def ne yonent bi def ne yàlla sëñ Tuubaa def ne gi tuddal ma ko ni kenn ci ñun rek bu amee tu tànk woob sëriñam ba mu ñëw da koy jox xale bi mu uuf ko waaye sëriñ da anu koo bëgg a tudde mu ne yàlla dana sëñ Tuubaa waa xasida noo ko bëgg tudde in sëñ Tuubaa ko damaa bëgg nga tuddale ma ko ma faatihul bishir wala wala yàlla ne ko nangu naa loolu moo tax loolu idlisme bi almusammi ki ko tudd te mooy yàlla waaye almusamma ki tàkku tudd wi mooy sëñ Tuubaa moo tax mu ne woon wa sammi haada al maktuba kon sàkku téefu sëñ Tuubaa ci yàlla waaye yàlla delloo sàkku téef gi ci sëñ Tuubaa ne ko noo bëgg ma tuddee ko ko boobu tax na mu am garaat ci kaw yeneen xasida yi ndax nag li yàlla tuddal boppam yëmu teg loo xam ne mbindee fa ko tuddee aw tur te xasida yépp nag li ñuy baax baax ñoom ñëpp benn bu ci nekk aw turam sëñ Tuubaa ko saytul boppam ci xelum boppam ak xalaatu boppam ak xam-xamu boppam waaye mafaatul bisiri moom kàcceet ko ca moom sëñ Tuubaa sàkku ci yàlla yàlla tuddal ko ko yàlla delloo wàttuli ci ndaal ne sëñ Tuubaa noo bëgg ma tuddee ko ko sëñ Tuubaa jox ko tur mu tuddi ko ko kon dafay euh, gën a kawe euh, yeneen yeneen xasida yi kon ismul xasida njariñ yu bari yi ne ci biir jëmm ju baax nee na ma Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Thierno ak sëñ maam Thierno li mu doonoon ci sëñ Tuubaa nee ko ne ku jàng ma fàttali si ba mu jeex boo yëgee ak boo yëgut làq nga saa ngërëm te moom ngërëmam làq ko mu ne su ko def ci caaxaan beneen bi itam mooy mag ñu bari saxal nañ ci ne ku jàng ma fàttali bi si di ànd ak laab ak teeylu jublu penku ba mu jeex te sa fasu ca dara ku mu dajeel bu la nuyoo yàlla jéggal say bakkaar moom mi ko doon fu mu jëm moom ki mu dajeel la wax de kon kii ko doon jàng te fasu ci dara bugg ci dul ngërëmal sëñ Tuubaa ak xam ne bi ko sëñ bii bind jot taxul dafa am lu mu ci juru mu dimbali sëriñ bi ci jàng gi saa bu paree dafa mel ni amatul bàkkaar te sëñ Tuubaa wax na ko maa ngi lay ñaan yow yàlla xasida gii gi ko dajale mbaa mu jàng ko nam ko def ne ku am bàkkaar nit bu amee bàkkaar dem ba yàgg mu mel ni ku musa am bakkaar lu muy tekk mooy ay bàkkaaram wadd na yàlla nu yàlla defal barke ci barkeb xasida gi xam naa dafay mel ne <laughs> li ñu ci bëggoon yéene ko ci man tey jàll ndax euh, nun sax moo mënu wax ji ndax nag dañu wax ne ku am gan teraani ku am ku yokk ku yokk cere yokk ñeex euh, boo amee gan goo xam ne tabarkàlla ci wax dong nga ko xam ak wax lu baax te nga bëgg lu baax tey wax lu lu baax su boobaa wax waratu la noppee la war kon nu ngi jéggulu ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp di wax ne daal lu jub ci wax ji baaxu suñu borom lu ci dëng ndog nga li doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen baal maako